jaan jëla. ñu ngi xeex. jaan bàyyi ma liiru jaan damay woo wuli de. ayca. sant drapeau liiru jaan le 4 janvier. liiru jaan na jëli revanche am moo gën. am na drapeau ba pare. maa ne na bëre waate wuli mu leer leerul Fatim. kon nañ ko leerale fii Dakar. mbaa ba leerul dafa war a leer. nañ ko leerale fii Dakar. ndax liiru jaan ñu ne ma buur baal ma rey ko. maam Balla. dama wala xodom yagul da koy bëtt bëtt na ko day dem billaay su bañee da koy da koy war noomal takk ko mu jug gis nga day tari day tari maa la wax lii Fatim day tari day tari door bàyyi day bàyyi dóoree tax am na foofu fu la mu mbëri yeggee jeex na gis nga ah ah ah ah mam bala ngi résisté Fatim mam bala ngi résisté Fatim yee eh, bu sàkkal moytul maam Balla. Ah, na moytu. ndax léegi foogoon na suuf. maam Balla Fatim mu ngi jël ay coups. bu sàkkal li muy def ci noonu Fatim. dafa del su bëgg koo féetee gannaaw. féetee wu ko gannaaw daa baax. Ah, mu ngi dóor. kanam gi moom tax na suuf moom. mais bu sàkkal bu ñàkkee occasion bi am problème Fatim.

li muy joxe ci effort day bari. ba pare njo njool mu sëgg lu yàgg ba. waaw ba yàggul te ki muy bëreel du ko tëlee fi mu nii jom rek lay demee ak ngor jom ak rek lay demee da baax. oh ndeysaan ndeysaan oh. xoolal yoo war na xondoom bon ak léegi. Oh. tëddal tëddal jébbalul benn yoon Mame Balla maa la ko ñaan lillahi wa rasuli mam Mame Balla lillahi wa rasuli mais li muy mujjee da ko njëkkee Fatim Mame Balla dimbali ma te yàlla tax nga tëdd Mame Balla e Mame Balla wuyul buur Mame Balla dama la koy ñaan Fatim e na ma wuyu nekk Balla wuyul buur Fatim na ma oh Balla dëgër nga bopp déedéet déedéet déedéet waaw arrêté nañ ko arrêté nañ combat bi te dañuy jox victoire eh, sàkka la ñuy jox. xoolal gémmañu Mame Balla gi sàkka la ñuy jox victoire.